Médina Cheikh TV, notre chaîne de lumière. boo gisee mu wax que dafa yëg ni dafa am ñaari étape yoo xam ni ci xayb rek lay xew xewul ci saxal benn bi mooy bu demee ba guddi gi xaaj benn bi mooy bu demee ba fajar bëgg jot. bu guddi gi demee ba xaaj yàlla dina yor lumière ci monde jahal jox ko ay malaayika ñu yoral ko waaw ñu posé ay question te kii posé question mooy borom bi mu laaj ni ñan ñu ñan bàyyi nelaw bi ci kaw lal bi wala bàyyi nelaw bi ci seen dallu te jub julli ñaari rakka ngir seen jëmbi borom demandé na ko waa monde shahada moo tax mag ñi daan wax bu ñu amee ñoom aajo boo xam ni dañuy yëg ni mënul faju guddi lañ ko daan ñaan guddi lañ ko parce que kenn du ko tegle juróom-ñaari guddi ci menn waxtu ba noppi yàlla du nangu la nga doon ñaan dañuy dem ba guddi gi xaaj ñu jug rek daal di jàpp ba set daal di julli ñaari rakkat daal di ñaan seen aajo daawuñu ko tegle juróom-ñaari guddi te seen aajo faju waaw bu ñu nag nii nit ñii di def léegi nga xam ni boo amee aju da ngay veillé ba waxtu ba jot su boobaa nga julli ñaari rakka ñaan aju bi daal di tëdd nag daal di fitteent parce que xamoo yàlla bi nga gënal du ki nga xam ne rek dafa veillé ba waxtu ba jot bi gënal yàlla mooy ki dagg nelaw ba jug dem jàpp ci daal julli ñaari rakka parce que gis nga jamono ju nit nekkee ci nelaw nelaw bi ni muy mel ci moom yaramam di reposé moment bi mu koy daggee loolu la yàlla saxu moo tax muy yor lumière am laaj kan moo am ajo ñu fajal la ko kan moo soxloo jaam ma ngir sama jëmm ma nangul ko ñu gis ni kon heure la bu yàlla di nangu ñaan nga xam ni tay bu ñu bu doon bu ñu doon def estimation dañuy wax aux environs de une heure trente du matin waaw muy guddi gi xaaj na tey Medina Cheikh TV bërëbu leer bërëbu Cheikh Tidiane Chérif mi nu jox Seydi Mouhamed El Cheikh sang bi di fi jàngale di fi seddale leer yi moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh sunu yaakaar